wolof dafa wax ne Saliou Faye ya yaaxul sœur bu ko dul yëbbal kon nag dana si sanni ñaari baat politique mais politique tam moñu président de la république son excellent le président Macky Sall lancé na démb ci Cambérène programme mu wu Cambérène ma fekke nag ma fekke te kenn nettaliw ma bu ma ne ma fekke te kenn nettaliw ma mooy programme boobu dafa nekk sur le programme de dix villes fu ñu ko def rek programme boobu ville nga Kaolack ville

bu ma yàggee nag mu ëpp njàmbaar nekk ab sër moo tax maa ngi yem fi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala